législative 2022 vous aviez une très belle coalition euh, xalaatoon nañu ne minimum vous vous en sortiriez avec sept ou dix députés mhm. yéen yéen a fi indi contra de législature vraiment c'était une c'était esthétiquement une très belle coalition mais électoralement vous vous retrouvez avec un seul député euh, place bi yow yaa ko jël yow liste bi Euh, lan moo tax les sénégalais euh, ne vous ont pas euh, porté au d'après yow avec le recul. bon jàpp naa ni en ñun def nañu suñu càmbar bopp ñàkkul amoon na ay limite yu ñu maanaam ay laago yu ñu àndal ñun coalition bu bees la woon yàgguñu yàgg xamantewuñ wuñ bu woon bu baax amuguñu woon organisation bi nga xam ne. Euh, wër na réew mi yëpp ak bitim réew et cetera deuxièmement amuñu woon ressources financières yi yi yi muy yi muy laaj ak yeneen yi nga xam ne je préfère les garder mais on avait effectivement amoon nañu benn coalition bu bu bu fës boo xam ne sénégale yu bëri nangoon nañu ni ñii kat ay comme ni nga ko waxee ay borom xam-xam lañ borom jaar-jaar surtout. parce que d'accord naa ci yow sànq que ni boo amulee jaar-jaar bu ñu la dénkee réew mi tamit boo moytul da koy nekk di tâtonner wala yóbbu ko ci kii euh, te teg fi benn contrat de législature waaye dafa amoon bipolarisation extrême bu gars yi créé ñun sax peut-être apprécié wuñu à temps ni bi polarisation bi dafa dafa dafa dafa dafa flagrantoon ba nga xam ne peut-être waroon nañu réajuster suñu position du point de vue tactique je l'admets ah naa ci ñëwaat rapidement mais bi la bi polarisation extrême ba nga xam ne même yéen presse bi da ngeen ci ànd ci bipolarisation bi engouffré ci am des événements des des acteurs de la société civile aussi qui sont transformés en politiciens participer à bipolarisation bu ñuy bokkulee Euh, c'est pas normal que ñuy bañ a bokk ñu ramener débat bi ci loolu ba nga xam ne nekkatul ci programme nekkatul ci liste mu ngi ci ñi war nañu bokk ñi nañu bokk list bi war na jàll liste bi warul jàll donc dans ces conditions on ne plus que de deux dernière minute tamit am l'effet euh, sosal bi ñu sosal bi ñu sosal de ñu sosaloon quoi bon dem nañu ba ñun ñu ñuy wax ci biir mais dem percevoir nañ tamit danger bu ci newoon de vouloir l'attaquer parce que bu ñu ko attaqué woon aussi. non attaqué ngeen ko. non vous nous attaqué un peu mais on s'est retenu que discuter nañu en ndax dañ koy def sommation interpellative ah ndax duñ ko yóbbu ci yoon parce que daf ñu sosal loolu la tudd quoi amul après ñu naan politique la non fi ñu toll woon non yéen waxoon ngeen ci ñoom nangam sangam mais sos la. parce que bu ñu ko waxoon tey ne indi preuve bi amul preuve bi te daf ñu yàqal lu bëri. nit ñi wax ni ah non vous admettez que. mais bien sûr waxu Sonko boobu euh, ça ça a eu un effet dévastateur mais bien sûr parce que même mais man dama ko vérifier Thiès ci samay ci samay nit ay taximan yoo xam ne xamoon te woon naa la waaw mais waxu waa ji ay femmes yu may woonee la mais il faut ngeen leeral il faut ngeen tontu et cetera pression bu forte ñu xool comment réajuster comment s'adapter surtout ci dernier jour yi la ko waxoon donc toujours est-il que tey jii nii def nañu bilan loolu lépp xam na tenir nañ ci compte mais wax dëgg yàlla sos jooju am na lu ci def te wax dëgg yàlla ñun toog nañu ni <laughs> ndax du ñu def sommation interpellative ndax duñu ñu saisir justice parce que dafa yomb nag nit ñi def seen liste liggéey seen liggéey taxaw ci terrain bi ay années man par exemple wala juge dem démissionné de la magistrature amul a gars yi benn contact amul salaire pendant des années xanaa léegi la nekk avocat à la cour pénale internationale di xoslu di dund difficilement ku ko xam-xam ne loolu mooy réalité ak man ak ñeneen ñuy tiire tirer la diable par la queue di jéem a di vivre notre dignité te bañ li nga xam ne wala def li nga xam ne ñu ñuy sosal ñi defuñu ko ci Sénégal man quand j'ai commencé à m'opposer pour pour pour des principes du ci Macky Sall ci ab Ablaye Wade la yow xam nga ni dañ ma exilé woon Comores yow xam nga ko ndax toog ak ministre Farba Senghor yow xam nga ko gaa yëpp nii non affaire bii nii la war a jaaree eh, dañ ci war a d'accord et cetera ma ne déet parce que c'est pas dans l'intérêt du Sénégal ñu exilé ma toute la vie j'ai combattu pour ce que je pense être l'intérêt supérieur de la nation sans attendre personne et parfois en étant isolé temps yooyu j'étais inconnu loolu moom dugal ci politique d'ailleurs ku mel ni je le salue au passage Moussa Tine bokkuñu parti politique bokkuñu langue politique il a Yewwi man maa ngi kii mais je lui reconnais son patriotisme son honnêteté son engagement intellectuel et cetera comme il me le reconnaît mun nañu bañ a bokk te bañ a xarabante wala waxante mais mun nañu wuute nag ay gis-gis li nga bëgg a wax mooy. ah donc bi ngay nekk di xeex pour l'intérêt du pays boobu Ousmane Sonko tàmbaliwul politique. waxuma ñoom rek ñu bëri ci ñoom. non moom mi porté accusation yooyu kon kon duñ bu ñu bu ñu bu ñu li ma bëgg wax naa ko wax clairement xam nga sànq yow introduire question bi man maa introduire question bi donc bàyyi ma développer après boo ma poser question man je personnalise pas le débat dama ni de 2007 à nos jours. wax ko ko chaque fois que je que sur des questions de principe d'accord uma damay ne d'accord uma un homme quand il n'est pas d'accord il dit non parce que aqulaay taalaa ngay xool ak intéres sénégalais yi bon donc bu ñu nee nii dañu ànd ak Macky Sall mais c'est une c'est une infamante c'est une accusation totalement infamante et ça vraiment j'estime que on peut faire de la politique avec élégance et bon loolu laa ci amoon lu ma ciy wax et c'est pourquoi yu fi xew derrière ñun yëpp parce que boo yàggee di wax ci nit ñi boo moytul wax ci loo xam ne da lay yóbbu ci ci kàmb gi. Mm-hmm. bon loolu laa amoon li ma ciy wax.